ci sa sant ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp ci wuy si bi ngeen ñu wuy si fii ñu bëggoon nag bala ñoo tàmbali waxtaan wi ñu def ay ñaan tàmbali waxtaan wi ci bisimilahi rahmaani rahim yi yeggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin ci kaw loolu nag dañuy jox suñu nijaay alaaja aada kamara mu def ñaan bu defee ñaan ba pare ñu commencé waxtaan wi pour nit ñi ñoo tax may wax li politique duma ci dem ci géew duma dem mitin duma ci si jëli mais tey suma kër laa nekk kii dañu bokk ndey ak baay bu xewlee te ñëwuma toog day niru leneen lu mu xewle nag si àdduna dinaa toog si wetam parce que lu def man maay kilifaam moo magam laa mais daf ma def nijaay def ma papa dinaa ko ñaanal ba pare ubbi ay kaddu li may ubbi kaddu mooy man PS la nekkoon salam mosa nek, di politique ñuy dem ba mu yàgg moo LD si Seydou Sall si misaal rek pour won leen ne leen même si biir kër mun ngeen bañ a bokk benn ngeen déggu te loolu dama ko jàngee si suma mak, alaaji maam sàmba sek, ak alaaji njàpp ma jël exemple si lu bëri parce que nit buy def lu baax te dara dekk ko si da nga di roy moodu dama ne suma rakk la te duma rëkk xool leen suñu kër gi fi la El Hadj Abdou doon dal néeg baa nga daay daayira tijaan yu sëñ Maodo yi si Koungheul maa leen yore 24 la ñu woon ba léegi maa ko yore delloo naa ba sonn ñuy bañ am na ñu ma si jiital pour won leen rek Koungheul gii nag man ku xamul it dégg nga ma ñëpp ma xam senegal yëpp ma xam Moodu lu mu xewle dinaa si toog. dinaa ci saf ba sàmba di sa demba politique nag man dama am ñaar fukki at ak benn commencé liggéey le 2 octobre 78 lañ ma am embauché ma am salaire u 28 500 le 12 juillet 2012 ma bàyyi liggéey ne góor dootuma ilifati ñu fay ma 13 millions ma séddale ko waa Koungheul yi si juróom-ñaari weer mu jeex ma di leen xamal ne li ma waxoon maa ngi ci politique nag man 1978 laa commencé voté damay voté am naa suma carte dama koy voteel ki ma neex man kenn tënkuma may choisir ku ma neex ma voté ko dinaa voté te lu suma rakk nekk dinaa si nekk ndax fii lu fi dee daf siy bokk lu muy def daf ma siy boole kon Modou la ma doon wax maa ngi lay sant di la gërëm baabu da ngay dalal si Modou su ma rak am yaakaar si moom ñu am yaakaar si moom maa ngi ñaan seen ànd bi yàlla na ko yàlla dëggal yàlla na leen yàlla jàppale yàlla may leen ndam lii nii nag may wax suma biir kër ne sañ naa fi jël kaddu sañ naa fi wax duma dem meeting nag kër kenn duma dem meeting mbeddu kenn duma ma jëlal micro keneen man ganaaru kenn nenu ma mbedd Koungheul yi fu ma neex ma jaar fi andi aada andi wu ma fi de man Modou Kabara moo ma fi andi li tax Modou Camara andi ma fi moo ma ko ji moo ko ji sama famille bu doon minuit sa wala une heure ñu fëgg ma ne ma wuyul Modou dinaa ñëw e lu tax loolu muy yow muy keneen beneen candidat baat ngeen di wut man nag damay sàmm baat luy sàmm baat koñ bi li muy rëy rëy doom yi budut benn wala ñaari nit maa ci mag fu ma leen mus di fekk ak lépp lu mu munti doon ak lu nekk ci ñoom mu neex leen mu naqar leen ñëpp xam nañ ne aada mun na boppam naqar na deret mais saa yu départ dara ñu ñëw boole ko man bu ma ne ko yemal fii mu neex ko mu naqari ko foofu la yem man baat boobu lu ko ëpp baabu Khady Dieng mi danaa la sant gërëm la ndax sa yaay soxna jaara ndax dafa bokk ak ko li dee baay ma nekkoon ci mairie bi di liggéey seen nijaay aji ko li am fu ma teg bokk ci ñi daan ni mam Samba Seck di ma digal lu baax bu ma ñëwaan sa kër baay tubaar fokkal la macha allah Maodo Diop moom fa dugaloon sa sang at mu jot sa papa jox ma xaru tabaski bu ma ne ko nijaay alaaji lii nag mu ma du jàmbaar danga ñoo yoral keesu mairie bi keesu dëkk bi te nga boo ko yàqoon ñun ñëpp nga ko yàqal kon ñëpp la war a dimbale laaj ko sa bàyyi mamadou ma di la seedeel nag baabu xadi ku bëgg sama caat ma la muy papa demba cobaan amul lu ko baabu di defal musuma la ko wax nak, ndax sama génn bareetul ba ma retraité ba léegi nga amal ma njëriñ nag am foo ma teg waaye li nag tax tey taxumaa ñëw sama caatu yaay mii ki ñëpp bëgg mu bëgg ku am yar ku gore kuy wan na gor boo séedee ma du ŋaa Mamadou nag du tarbu yu kenn li ma xam ci Mamadou rek laay wax ci Mamadou Mamadou ku ko jàpp jàpp gor ku ko bàyyi bàyyi gor xëy na nag chance am nekkagul ci politique waaye sa digganteeg Babou Khady yàlla na doon sa chance yàlla na doon sa chance ndax dangay dem ànd ak gor yi te gor yi gor gor boo ci ànd rek majorité nga koy jox sa lii tey ñu bari yëguñu ko man damaa toog sa mbedd ma fu ma romb ma leen Mamadou dafa woote waaye xam nga ne ñàkkoo nit de ñàkkoo wërsëg aayoo gaaf xanaa kañ dangay ànd noo xam ne nii dañoo mel ni man waaye Babou Khady mii am naa ci moom yaakaar bàyyi ma tax ma am ci moom yaakaar kon nag ndam li yàlla leen ko yàlla defal yéen a xam fu ngeen bëgg a egg yàlla leen fa yàlla eggale te it nag yàlla leen yàlla dàqal seytaane ndax seytaane nit la te ku koy déggal doo ànd ak kenn baabu xarit nag jàpp nga boroom wooloo jàpp nga xale bu loxoom set mu mën a bokk ay mag kon yàlla leen yàlla la fa jat jafe waaye Moodu mii billahi góor a ngi nii tey du Camara mii moo ma ko jàngal te desaluma gannaaw benn yoon un mois ngi nii génn ma sama buntu kër moom mii moo tax tey ma génn ami mbubb mii ba mu ñëwee lu ma wax du Camara tax nga génn ma fier tamit yow si baabu si li may dégg si yow ak maam Xadi parce que xëy na sa papa xamante naa ak moom yàgg nañoo dem si moom ndax jigéeni développement la di am yoo xam ne dañuy dox di dem si moom mu ñu koy régleel kon sant yàlla kon doomam bu ñëwee fii tey si Modou Camara dañ koy sante yàlla bu baax da xam ne ñëw nga ci koo xam ne jar naa ñëw Modou Camara mii li Tanfat Gueye wax ak xëy na dafa amagul sens si politique waaye lu yomb jot ku gudd fan da nga fekke te damay ñaan si yàlla yónnate ñëw bii nga ñëw si moom ànd bii yàlla na sax waxoon na ko si politique yàlla na si yow yàlla na leen yàlla may ndam man nag Modou Camara si moom xaw ma guddi na xaw ma bëccëg na même bu ma feebaroon jaral na ma ma génn ndax ah, moom moo ma ko jiiñ moom magam ji di sant nag mbooleem ku fi ñëw ñu ngi lay sant di la gërëm di sant waa Cameroun mën daa sant naa yëpp aji Modou Camara mii toog bu di la dalal jàmm fii ci kër gi di la wax ne nag ñun ñii ñun waa Koungheul ville ñoo ngi topp ci gannaaw Mamadou Camara fu mu xool rek fa lañ xool duñ xool mu ko fu mu xoolul fu mu ñu joxañ rek foofu la yàgg na te moo ñu ko ji nag yaa ngi soog a jàpp nag kii nga jàpp nii gor la garara la la topp ngir alal du la toppul dara Modou lu mu am rek lu mu lay wax rek yàppal ma sama nit ci koñ bi man loolu laa xam ci Mamadou góor ak gore moom laa xam ci Mamadou Camara wax dëgg yàlla ñun nag jigéen lañ ñu ngi fii ci koñ bi maa ngi leen di ñaan bis la 17 kenn ku ne na nga nag bi onon bandam haal pulaar en ñane 17 moni fo yo wootal ngaari ndi nani yagge nge mbaɗo fof yo wotan ɗum mamadou camara inchallah toddi len le 17 inchallah ndamna ca kanam rek naa seen gaynde seen militance sen ganaw ci ganaw kii fu ma joxoñ foofu laay nekk fu mu nekk nii te du ma la wax bambara laay wax bambara laa bambara laa de caaxaan duguma ci caaxaan duguma ci gars yi kenn yàbbuma fii gars yi xam nañ ma dama lay wax ne kii baabu am ngeen tey acteur foofu noonu gannaaw Bécaye suma frère jot nga ko waaye Koungheul Santhie bambara yopp ñu ngi sa gannaaw di jégalu bu baax nag parce que kàddu bi dama ko bëggoon a bàyyi sama tonton rek Pape nag laay tëral kon baabu moo ko yor ñun nag rek la ñuy dem incha allah rabi bu soobee yàlla bii baabu yal na ko yàlla bi merci di nuyu ñëpp nag di feeñal suñu mbégte waaw ndax dañu wax ne woote yomb na waaye wuy si moo jafe comme ni ko ñëpp waxee li ma luye ci chaise bari na mais dama toog ba mu jig may wane fu nekk di laaj ngir siège yu kon nag li ñu doon séntu xëj na gis nañ lu kawe sunu njort ci côté boobu di wax ne honorable Babou bala ñu lay wax ne ñu ngi lay dalal bu baax yaak honorable maam Khady Dieng Mbaye mi ñu gërëm ñi nga xam ne jaar nañ fi te jël kàddu ñu mel ni sunu mag njëkkee ci moom alaaji aada kamara ni mu ko waxee noonu la bés boo xam ne kat sama bés la ku ne xam ne ne ba mu waxee ne bàyyi na politique ba léegi kenn gisu ko ci géewu politique kenn gisu ko ci jataayu politique waaye nag moom dafa nekk taxawaay taxawaayu kilifa taxawaayu xalifa ci kër gi moo tax ma kontaan lool bi mu toogee fii parce que deful rek acte de présence mais gis nga mu ngi nii toog xaar cérémonie ba mu jeex loolu lu ma sentir la lu dina ci gërëm bu baax Aada Camara di la ñaanal yàlla bu baax man xam naa ni ma mel ci yow te kenn du ma laal yaa yow kenn du la laal suma kanam waaye man xam naa ne kenn du ma laal sa kanam te loolu yàlla na ko yàlla saxal diggante boobu ma ne bàyyi la politique baabu mais kii téléphone am bi li mën a régler bëri na de te lu ma ne mu ca kon nag yàlla ñu yàlla defal jàmm suñu ànd bi yàlla na ko yàlla sàmm aar ko dëgëral ko man nag mouvement laa yore wax nañ ko suma mouvement mu ngi tudd M2K mouvement kaaraange Koungheul 2022 laa ko créé ba ma ko créé fii laa ko créé wuy si bu rafet laa amoon te ba ma ko créé it tey maa ngi wax te ñuy wax nekkuma mbuub ma ne ko sa jataay ma jataay bi il faut nga ñëwaat ci ndax ba may créé mouvement bi yow da ngaa miin Cameroun te sa teewaay dafa maa jig ndax at moo ca laa dama ko créé teguñ ci weer xama ñaari weer yàlla baaxee ma biyee màkk kon nag xéewal googu ma daj ba may créer mouvement bi yàlla naa gis lu ko raw ñu bokk ko ñun ñëpp ci barke Seydina Mohamed ndax ni ma gisee woon mbooloo keroog noonu laa gisee nii lu ko raw ma ne suma mouvement bi Ndiol joow wax na ko moom ci vice président la bokk te artisan la

ku ma yëgalul programme sax boo ko déggee da ngay ñëw su ma mag Fatou mu ngi nii wérul léegi la ko jóge tànk yi sax mu ñu ngi ko takk waaye soox na ba yegg si ba def seede yu rafet yi dégg ngeen ko yéen ñëpp kon nag loolu day na sant suñu boroom yow nag baabu wax dëgg yàlla maa ngi kontaan ci sa ñëw fii parce que tamit candidat yi bëri nañ te ci sama ay nit daf ci bëri ñoo xam ne dañ ma doon woo téléphone naan ma mais yow ci loo nekk ñun di déggaguñ la ba léegi koy jàppale yàgg nañ laa wax utalal pour sa bopp parce que yàgg ngaa jàppale nit ñi parfois mu am leneen ak leneen te duñu neex kon te ngaa utal sa bopp ma ne leen dégg naa leen waaye xam ngeen ne député dafa nekk mbir moo xam ne problème mu département la du problème mu commune département nag pour nga wër ko dafa laaj ay moyen pour nga wër ko da nga luy ay oto da yore loo xam ne foog nga yi ngay ànd ak nit ñi chaque fois di jóge fa te loolu wax dëgg yàlla tollooguma fa wala boog yàlla jagleeguma sa boobu te dama naan man dama gëm yàlla lu jot yomb moo tax nag ma ne du doon candidat waaye nag ñi ma seet si bari nañ de mais man damay xool profil profil bi ma xoolee profil ba jàngat situation bi ma xool ki ma war a àndal laaj sama ay conseils ñi ma jege.

am suma benn xarit bu yendu fii dafa guddi moo tax mu ñibbi jóge kër Ablaye Fanta mu ne fan yee ci ginnaaw seen mbedd yoo xam ne ndëraan yi ñoo koy defar ndëraan yi laa wax de ñoo koy defar tali baabu mi moo leen tali seen dëkk kër Ablaye Fanta ak yeneen ak yeneen ku ne gis na ndimbal yi muy joxe fii bu tabaski jote département bi lay joxe de yemul ci commune bërki dem moo Njaay fii la ma fekk ci gàmmu gi bi ñuy waajal suñ burdu populaire bi ma dégg ne Babou Khady séddale na lu mat 40 nag ñeent fukki nag ci département bi ci këru diine yeeg ak ci jumaa yeeg fépp dëgg waaye kii kon nekk na honorable député xanaa dañ ko joxagul écharpe bi dama ne nekk na député ndax rôle député lay dox légui takal ko écharpe bi mo dess te takal écharpe bi mu ngi dess ci sen loxo yeen ñii kon yeen samay soppe samay nit samay am di jam samay xarit samay mag mané ma ngi len di ñaan encore une fois ngeen jappalé le 17 soriwul tay le 2 yakarna dans 15 jours ñu jappalé babu Khady mu jël département bi muy suñu njëriñ di sen njëriñ di njëriñul département bi inshallah allahu rabbi di gërëm nak ci teewaay bi sunu mag boo xam ne responsable de parti la te responsable de parti départemental bi mu yëgee mbir mi wallaay azim man kat dama ko doon yëgal far mu ne ma yow man ci baabu nga ma fekk moo ngi nii toog ajaratu Yaama Ndiaye moo toog nii Yaama jógal ñu présenté la mu ngi nii maa ko jaral mu déplacé wu ñëw bii ndax mënoon na woo baabu këram waaye dafa ne damay ñëw fii fekk si baabu te maa moom dañoo yàgg a ànd liggéey dans le cadre des alliés ci Benno Yaakaar mu yore parti Mamour Niass kon nag maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm beneen gaynde koo xam ne nag liggéey rek la mën ndax yàgg naa ànd ak moom di ut ay parrainage su ma nee la suma parrainage yu ma am ci jamono yi Assane Diouf ak Mayacine liggéey na ci lu bari jox na ma mbooloo kon kon ku am gannaaw la muy soxna Mboose Dieye baabu Mboose Dieye maa ngi la koy dénk jàpp ko moom nag ni aada Camara mel dafa dëggu te xam nga boo dëggoo da ñaan da nga naqari deret mais liggéey rek la mën te kuy ut mbooloo romb ko def nga donc maa ngi lay dénk Mbossé Dieye sama waa koñ nag Koungheul ville laay wax parce que nag mbéy wu ne am nga démb te dañ naan mbéy ci sawewu tànk gis nga kombe gi jëm Koungheul ville nii ah yëpp wu ma leen de gërëm naa leen sanq ndey ndey bajaan mii dafa ñëw mu ne Mamadou Camara mere naa la ma ne ko lu xew mu ne ma sa programme bi ko waaye yëguma ko mais damaa dégg ne yaa woote ma ñëw doomi opérateur économique bi neex may bajaan ndem si yàlla moom la ak ñeneen ak ñeneen ñoom Fat Diallo minatu jàpp te bàyyi li Sathiam waxoon Aminata Gueye mii wallaay dinaa wax benn seede ci moom dafa nekkoon PDS dëgër ci wallaay ànd ak Ndeye Siga Ndiaye saa su ne mais def na ma Mamadou Ndeye Siga léegi bàyyi na te man naka jekk yow yaa nekk ci sama xol bi damaa xamutoon nu ma koy def waaye fi mu ne nii loo woote waa këram ñoo fi jiitu gërëm naa la bu baax sant naa la. waa mbootaayu jokkere indam mooy ki wax léegi Ami Ba ñooñu laa même chose sœur Mamadou Bala ñoom it xeebaluñ ma dara bu doon alal la duñ ma topp mais yëg-yëg la. ak am ñoo xam ne xëy na da nga leen defal lu tuuti loo xam ne yow fàtte nga ko sax mais ñoom duñ fàtte démb lycée bi ma nekkoon di fa liggéey nekk intendant man yàlla ma bindee noonu lu ma am damay partage lu ma am damay partagé dama ne su ma narul partage yàlla bu ma am xale yi fa doon jàngee seeni waajur ñu ci bëri jàpp nañ ma ndax na ma téye woon seeni doom foofu kon nag loolu du ma ci jóge pension laa yore mais maa ngi sant yàlla te jaami aadama yi ñu may bàyyi xel bëri na élèves yoo xam ne sax dama leen doon jàngal ñu doon ay cadre tey wallaay barki Demba Ndiaye la ñu jënd fourniture valeur de 300000 teg ko sama loxo ma yóbbu ko école 1 ñu ne ma monsieur Camara yaa ñu ci doy dimbalee ko suñuy rakk yi nekk foofu te yow lañ ko jox yaay suñu pare ñoo ko dajale xaalis bi des ñu ne ma def ko ci sa poche. barke salaat parce que li may wax du dëgg yàlla bu ma ak leneen ak ak yeneen ak yeneen kon nit ñi man mënuma ma leen a fay sax am na ñoo xam ne ci yeneen sax kii lañ nekkoon mais biñ ma déggee Euh, rek ci lañ bàyyi lépp euh, seeni naa la gërëm waaw naa la gërëm parce que tamit ku baax nga te bëgg nga baabu maa ngi gudd yaag sa soxna yëpp gis nga sa soxna am na benn témoignage maa ngi sori ci témoignage yi mais mii na seeni mii mooy boroom këram waaye bu ñu koy waxu politique ak leneen xam nga lu ko ci mën a tegal man Pa Modou laa de sama jëkkër nga nag mais man Pa Modou fu mu joxoñ foofu laay joxoñ loolu dafa daw yaram te ñoom dañoo yàgg moom ak ñoom awa fay kii congaan ak euh, ki groupe la boo xam ne vraiment maa ngi gudd mais daal gërëm naa ñëpp honorable maam Khady ni ñu gërëmee Babou am yaakaar ci moom noonu lañ ko amee ci yow yàlla na ngeen jigante yéen ñaar ak seeni suppléant en tout cas li ma leen di xamal mooy man de wax dëgg yàlla du fontoo duma ma te su ma xalee jël décision damay engagé wu dem ba jeex politique nag sama mouvement laa yore du ma militant wu kenn mais sañ naa nouer alliance ak ki nga xam ne moo dal sama xel ki dal sama xel nag mooy Babou Khady Dieng te moom

mu toj ko lu santé ci walu éducation ci walu agriculture mbey lepp amna programme politicien programme ba paré nek nit ku bax joxé di askanam di département maa ngi leen di gërëm encore une fois gunóor yaa ngi fi yëgu leen ko takkusaan ba léegi ngeen fi ñëw gis naa ñëpp ku ma tudd ku ma tuddul gis naa ñëpp ndax sànq dama doon wër di xool ñëpp donc mënumaa lim ñëpp waaye daal xam leen ne kontaan naa te yal na leen yàlla fay kontaan naa ci ci sama soxna samay waa kër ak samay jegeñaale Aliou Dabo wax naa ko gërëm naa ko Doucouré la même chose gërëm naa ko sama mbokk saraxule yi gërëm naa leen ñëw nañ mais dafa am ñu des ndax tey dañoo amoon benn xew waaye rek àdduna moog loolu ànd kon daal baabu ci gàttal ngeen xàmmee bulletin bi pour le 17 incha allah nag moom dina ko wax ci gannaaw suba yaakaar naa altine su wéree di ngeen am information bi ki nga xam ne mooy tête de liste bi coalition bi di Maguette Sène dana ñëw Koungheul seet ko te bu ñëwee seet ko bëgg nañ nag ngeen sagal ko su ko defee mu doon nu mu ko bëggee rek ñu defee ko noonu ànd ak moom accueillir ko accueil bu rafet di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa suñu xarit suñu référence suñu papa alaaji aada Camara di nuyu suñu papa Modou Camara nekk également suñu conseiller ci lépp loo xam ne ni mouvement de jeunesse la à travers le département de Koungheul tey nous ñu l'honorable député Babou Khadijeng, investi sous les couleurs de la grande coalition la marche des territoires and nawle mu feggoo ci ak ci ko ànd ak une forte délégation ñëw bii ci bésu ki nga xam ne ni kenn la ci biir Koungheul rawatina ci Koungheul ville muy suñu papa Modou Camara mais père Modou liñ leen di rassurer rek mooy jàppante nga également ak jeune bo xamné jeune bu ambitieux la jeune bu courageux la jeune bu bëgg département bu Koungheul la jeune bu bëgg la jeunesse du département jeune bo xamné liko li law teree moy yëpp mooy sur les rampes de l'émergence je vous le mets babu Dieng comme ni nga waxé tay taxawayam taxawaayam du pour bopam ñun xam neen bu baax que tey baaw bu doon boppam rek mu dem Dakar toog di waagante diggante Dakar ak Tugal parce que il est bien assis car macha allah mais da danaan man su may ñëw ci département bi du sama jëmm moo tax tey bu doon un wala jeune bo ne bu paresseux la bu ragal la bu ñemewul day dem ci liste nationale parce que le mouvement la marche des territoires na au niveau national and ci du mais vous dem ci investiture yi man liste nationale lépp lu ma war a doon ëllëg ci biir senegal waa Koungheul ñoo ma koy def bon damay dem fa ma dëkk fa ma cosaanoo ànd ak ñoom lëngoo ak ñoom ñu ànd jàppalante lu ma yàlla may ma xam ne loolu laa am mais tey bépp Koungheul waa boo xam ne conscient nga bépp Koungheul waa boo xam ne nii tey l'avenir du département yaa ngi ciy xalaat di ñëw soutenir la candidature de Babou Khady Dieng parce que tay candidature boobu non mom mo wara taxaw département bi taxaw également la jeunesse ci pour réalisation bal acte bo xamné ni nii posé ci département bi Pa Modou jaar na ci mais dafa am lo xamné ni lu ama am solo la parce que nit bala nga nan nam day fekk nga fa au lendemain des élections territoriales de 2022 département bi dafa jaxasoo won trop jeunes yu maire

mu ne tey war neen def ay activité yoo xam ne ndaw ñu dinañ ci gis seen bopp mais également jéem a poser pour corriger le déséquilibre au niveau régional au niveau régional bala discrimination bi nga parce que à travers les autres départements ou régions Nous avons inséré beaucoup de jeunes bala faire la promotion de beaucoup de jeunes de Koungheul de ci doon des ginnaaw mu secteur du ma étant opérateur économique man avons dégager lu 100 tonnes d'arachide ñu séddale ko ci juróom-ñeenti communes yi jox ko jeunes yi nga xam ne seen loxo jot seen ginnaaw pour que suñu bayee ba may mi jeex ñu mën a créer ay petites et na entreprises pour seen bopp parce que ñun zone bi ñu nekkee zone agro sylvopastorale loolu ku koy def yow yaa ngi xalaat ne man balaa dara di am d'abord population bi ñoo njëkkee jeunes pas donc appel à l'endroit de la population de Koungheul pour soutenir Saint-Dom, de soutenir Saint-Rac parce que Baboumi, il est très jeune Tay buñu amé un candidat qui xamné ñu né tay bu mu juddee euh, ci année quatre yi la te même que Mam Khadi, nga nous avons des candidats jeunes bon neen soutenir la jeunesse nous ñeu soutenir l'avenir du département l'avenir du département c'est Babou Khadi. je vous remercie. Ma ngi and ak Babou bisit ànd nawle Maguette Sène xam naa man mënuma wax sax lu bëri waaye yéen waa Koungheul surtout maa jigéen ñi maa ngi lañuy ñuy tàllal sama loxo te am naa yaakaar si yéen ndax ñi ma gis fii nii rek man sama xel dafa doy surtout ma Moodu Moodu mu baabu bu yeboo nga dem àll ba bàyyil Moodu ci dëkk bi Koungheul moom Moodu dina ko defar loolu moom xam naa ko te Papa maa ngi la ñuy gërëm di leen sant kontaan naa. sunu papa. alaaji aada Camara mu jël nuyoo bi joxal ñu ko njaboot yëpp di nuyu ki nga xam ne tey moo waral bés bi muy alaaji di nuyu aussi waa ville di kontaan bu baax ci mën naa ko tuddee réunion mën naa ko tuddee meeting ndaxte lii yaakaar naa ne avancement bu am solo la si liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey si département bu Koungheul kon tey nag su yàlla dogalee ci ay waxtaan yu xóot à travers sunu papa Alaaji Aada Kamara l'honorable député Mohamed Dieng dugal ci kàddoom waxtaan bu am solo ba tey ñu toog man ko confirmé lan mooy intérêt bi pour département bu Koungheul mën a émerger wu yaakaar naa ne loolu lu am solo la kon nag di wax euh, waa Koungheul ne Alaaji Mamadou Camara teguwaat na ci beneen yoon woo xamante ni seen xel war na gën a dal ci moom yaakaar naa ne dinañ ko jàppale ba bépp ambition boo xam ne am na ko pour la commune de Koungheul mu mën ko réaliser. rawatina aussi jigéen ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi yaakaar naa ne li ma fi gis ay kilifa ñoo fi toog. koñ bu nekk am na kilifa jigéen bu fa jógee ñëw fekkee si ndaje bi li may bëgg wax si loolu rek moo jotaay bi yàlla dina ko defar parce que li ëpp solo mooy yéene bu rafet te ku dégg alaaji aada kamara ni mu waxee di nga xam ne kii bu rafet la am te moom mooy kilifa gi lépp lu ñu nekk su ci àndul woon du mel nii kàddu yi jarul muy gudd yaakaar naa fi nu jaar ñun ci département bu Koungheul ak taxawaay bi ñu ci am ñépp wax nañ ko te dañ ciy gën di taxaw parce que ñun amuñ lenn lu ëpp Koungheul lépp lu ñu mën a dem ci biti ami ko suñu xel Koungheul lay njëkk daj kon loolu mooy suñu yéene te suñu àndee ak Mamadou yaakaar naa ne liggéey bi day gën a gaaw résultat bi day gën a fës bu soobee yàlla lii président bi tey wax sànq wax dëgg yàlla yaakaar naa ne euh, non honorable Mame Khady Seck moo ko wax ne Koungheul nañ ko bàyyee moom Mamadou kamara yaakaar naa loolu suñu xel dina ci gën a dal ndaxte yàlla dogal na am na ay jeunes yoo xam ne ñu ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi tey bu ñëwee ànd ak ñoom nekk seen kanam liggéey bi dina gën a rafet kon loolu sama xel dal na si bu baax baax li ci des nag moo di ne ñu continuer liggéey bi parce que fi ñu jëm dafa sori. boo koy xool presque li ñu doxagum bariwul nañu continuer am benn vision bu claire yaakaar naa ne fii ak le 17 incha allah bi bu ñu demee ba population yi war a voté ba résultat yi génn à 18 heures ànd nawal bi di jolli su boobaa lépp dina am solo lépp nag taxawaay la di wax ne. ñun ñoo bokk département bu Koungheul li ma waxoon démb rek lay waxaat nañu ànd tàppe xol yi yaakaar naa ne violence amul njëriñ lii politique la te yaakaar naa ne département bu Koungheul bi population yi am nañ conscience bu baax si ñi nga xam ne ñoo leen di taxawu ak ñi nga xam ne ñoo leen di nax te yaakaar naa ne ànd nawle foo mën a war ci biir département bi gis nañ ci seen bopp kon di wax ne nañu def ndànk rek xam ne ki war a tànn xam na li mu war a tànn loolu jarul violence incha allah rabbi le 17 yaa jàpp naa ne comme ni ko ñëpp waxee rek am na ko wax quatre-vingt-quinze pour cent waaye nañ ko wàññi ñu def ko rek quatre-vingts pour cent incha allah rabbi jàpp naa ne bu yàlla dogalee dinañ am loolu list bi nag mu ngi nii bulletin bi bu la blanc am nag bi nga xam ne nag bi dafa ma sëkk wàññeekuwul dara yaakaar naa ne am na liggéey buñ ci war a liggéey mooy euh, équipe bi nga xam ne war nañ ànd dugg ci biir kër yi lancer message bi ba nga xam ne bu ëllëgee eh, lépp loo xam ne luñ ci doon séntu la dinañ ko dinañ ko ci mën a am. di leen joxaat beneen information comme ni ko Mamadou waxee rek Maguette seen incha allah rabbi lundi war na ñëw fii ci département bu Koungheul ñu ngi invité ñëpp ñu accueillir ko ba nga xam ne su boobaa eh, liggéey bi dana gën a oyof.